inna allaha naka yàlla inna allaha naka yàlla yu daafiu dana mu jañal ani ladina ci ñi nga xam ne amunu gëm nañ yàlla nag mooy ki nga xam ne mooy jañal ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla moom moo leen ni jañal seeni noon yàlla képp ku gëm yàlla rek yàlla dana la dimbale say noon dana la jañal ba nga xam ne say noon duñ mën ci yow dara yàlla moo defal loolu ñëpp ñi nga xam ne gëm nañ yàlla waaye bi loolu bu loolu amutoon da gis ne noonu lislaam yi dina ñëw songu jullit ñi faagaagal leen ci benn taxawaay mu jeex boobaa kenn dootu dégg ci lislaam duñ gisati jullit ci kaw suuf waaye nag yàlla moo leen jañal ci seen noon ba nga xam ne mënuñu leen dara dañ leen ragal sax ndaxte gis nga bu yàlla defatoon loolu kon ca xare badar ci lay lislaam di faagaagale de keroog waa màkk indi nañ junney nit yu manki juróom fukk ci ay xarekat yonent bi sallallahu alayhi wa génnee ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett junne loolu bu bu yàlla jañulu toon jullit ñi kon keroog jullit ñëpp danañ leen faagaagal de ca xare Uhud yonent bi junne la génnee waaye junne bi ñetti téeméer yëpp ak ay naafeq lañ juróom-ñaar fukk rek juróom-ñaar téeméeri rek ñoo mujj dem ca xare ba Abu Sufyaan indi ñeenti junne nit waaye terewul ñoo mujjee ndam de ca nga xam ne dana ñëw incha allah keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeenti junne la génnee waaye ñoom waa màkk keroog indi nañ fukki nit fukki junne wala fukki junne ñaar moom la indi keroog bu yàlla lu toon ñi gëm yàlla dañeen leen son leen kon dañ leen faagaagal de ba tey jii nga xam ne jullit ñi tey ak seen néew ak seen ñàkk euh, pexe mu bëri noonu lislaam yi ñu ngi fexeel fu nekk ci àddina te ñu ngi am pexe am ay ngàndaay am ay bomb yoo xam ne buñ ko taalee rek àddina bi jeex lu ne am nañ ko liñ gën a bañ tey ci àddina noonu lislaam yi mooy lislaam waaye terewul mënuñ julli ñi dara ci kaw suuf mënuñ leen dara de ndax yàlla moo wax ne yàlla dana jañal ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla dana leen gañal eh, ci yéeféer de inna allaha naka yàlla laa yuhibbu dumu yool kulla qawaanin bépp aji huri ak bépp aji huri jaakoon kafoorin kay aji weddi jaakoon de xéewal yàlla ba ko de usina digaleef na lillazina ñeel ñi nga xam ne yuqaatiluna daneen xare bi annahum ci sabab ci naka ñoom zulimu tooñeef nañ leen wa inna allaha naka yàlla laqadiirun aji xattanum alaak la qadirun aji àttanu ala nasrihim ci dimbale seen de yonent bi sallallahu alayhi gàddaayee ba jëm madinatul munawwara ca at mu njëkk atam ñaareel ci la yàlla wàccee ci moom ci la yàlla ci la ko yàlla jox ndigal ne ko léegi képp ku ñëw képp ku xariteeg yéen rek na ngeen xareeg ñoom na ngeen xareeg ñoom jox leen ndigal loolu moo waral xare badar ba mu ñëwee rek mu song leen de ndax boobu yàlla jox na ko ndigal de ñi nga xam ne nag jullit ñi nga jullit ñi nag yàlla nee na jox na leen ndigal pour mu xare ñi ñi xaree ñi nga xam ne dañoo di yàlla de te yàlla dana leen dimbale àttan na ci dimbale leen moo tax xare yëpp dimbale na leen de dimbale na leen ca Badar dimbale na leen ca Uhud dimbale na leen ca Xandax dimbale na leen ca Tambuk ca Hudaybiya dimbale na leen ca Hunayni yooyu yëpp ay xare la yoo xam ne yooyu yëpp nga ci fattu makka yooyu yëpp dimbali na leen ci de alladina mooy ñi nga xam ne uxriju génneef nañ leen ñu diyaari ñu tukkeekoo ci kër seen bi xayri xaqin ci lu dul dëgg de illaa an yaqulu ndere bu ñu ngay wax naan lu dul seen wax jañ wax ne naa yow borom suñu a ah, rabbunaa borom suñu allahuma yàlla de ñoom nag génne nañ leen ci lu dul dëgg génne nañ leen seen kër yi ñi génnee jugee màkk jëm madina te génnewuñ leen dara lu dul wax ne yàlla mooy suñu borom rek de walaw laa difaaullahi bu taxatoon nag jëñ ak yàlla naa si ñe baadum ñenn seen bi baadin ci ñenn lahuti mat kon dana mabbeef sawaamiu ay jàngu mu ñeel labbe yi wa biyahun ak i jàngu mu ñeel nasaraani wa salawaatun ak i jàngu mu ñeel yahudi wa masaajidun ak i jàkk yëskaru def nañ tudd fiyaa ci moom ah ismullahi turi yàlla kathiran ngay aji bari de yàlla nag bu jañutoon lenn nit ñi ci lenn nit ñi kon da gis ne jàngu yi fi nekk église yeeg yëpp jàkk yeeg lépp dana mabb de mujjee na tudd jàkk ngir màgg ngir kaweeg maqaamam ndax jàkk yi ñoo gën a foor loolu yëpp moo leen ëpp maqaama moo leen ëpp daraja de comme ni ko defee ci beneen aaya fa minkum kaafirun wa minkum mu'min wala yansuranna allahu dana mu dimbale yàlla man yansuru képp koo xam ne dimbale na ko de ba taxawal ba taxawal diine képp koo xam ne eh, taxawal na diine yàlla eh, yàlla dana ko dimbale de yàlla soxlul kenn ku ko dimbale ndax ñàkkul kattan waaye mooy ku taxawal diineem ba koy jàpp ba taxawal diineem kooku yàlla dana ko dimbale de inna allah naka yàlla la qawiyun aji dëgër lu mu wala la qawiyun aji àttanu mu ci mbindeefam azizun aji not lu mu de alladina mooy ñi nga xam ne ñi yàlla di dimbale nag in makkan naawum dem jàppanal na leen fil ardi ci suuf ba dimbale leen ci seeni noon aqaamu ñi taxawal asalaatu julli wa aatu tan joxe azakaatu asaka wa amuru tañ digale bil maarufi ci lu baax wa naxaw tañ cere anil anil munkari ci luñ sibde ñi nga xam ne nag ñooñ leen yàlla di dimbale mooy ñoo xam ne bu leen yàlla jàppandalee suuf bañ gañee bañ gañe seen noonu daneen taxawal julli juróom te daneen joxe asaka te daneen digle lu baax te tere lu bonde walillahi ñeel na yàlla aqibatul umuri ba mujj di buñ sant de aqibatul umuri mujj ak mbir yi mbir yëpp ñeel na yàlla de mbir yëpp yàlla la ñeel de wa in kasi wa in kasi buuka ndem weddi la def loo yonent bi la ndem weddi la ñoom waa Makka ak yéeféeri su fekkee weddi la faqad kazabat weddi woon na xabluhum ci njëkk seen xawmu nooxi nit yi yonent yàlla noox weddi woon na de wa aadun ak nit yi aad ñoom mooy nit yi yonent yàlla huud ya wa samud naa nit yi yonent yàlla de wa xawmu ibrahima ak nit yi yonent yàlla ibrahima jàngoon barki démb de wa xawmu luutin ak nit yi yonent yàlla wa ashaabu madyana ak waa madyana mooy nit yi yonent wakkuti fa wétteef na Moussa musa xibtu yi ak Firawna yépp wétti woon nañ Firawna yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu la waa màkk wéttee wétti la ba nga xam ne gëmuñ la muñal de ndax yonent yi la jiitu woon yépp da ngeen a wétti kon nag su fekkee ne ñoom eh, wétti woon nañ leen yow it bu la wéttee buñ la wéttee bu la naqari ndax ñi ñëpp wétti woon nañ seen yonent de te jàngoon nañ ñoom ñëpp seen xista dawe woon na fa am lil na ñeel way weddi ña de ci mbugal man nag maa yéexee mbugal de su ma àqas ah, su ma topp ma jàpp leen waaye nag bu ma leen jàppee duñ mucc de fa kay fa kaana kaawteef naka lay nekkee nakiir yi sama mooy lan maanaam mooy dana tàbbi ci tàbbi waaye ci tàbbi waayam rek de képp koo xam ne gëmul yàlla ni yàlla dana ko mbugal de fa ka ayin bari na min xariyatin ci dëkk bari na ci ahlak naa boobu ahlak nañ ko de waaye ñoom ñoom dëkk ba zaalimatun aji wétti lañ de waaye moom dëkk ba xaawiyatun aji rot la mu xaawiyatun aji daanu la mu ala urushiha ci ay lollam de bari na ki xaawiyatun aji rot la mu ala urushiha ci ay lollam de wa biirin bari na teen muattalatin yee aji yuqeel wa xasrin ak i ñendi ak i tabax mashidin yee aji yëkkatiku de ba yàlla nag dina bëri na dëkk boo xam ne nit ñi dañ faa dëkkoon weddi yàlla yàlla xalag leen yàlla xalag leen ba nga xam ne boo demee ci dëkk dëkk ba da ngay gis ne lool yëpp daanu nañ teen ya nag nga xam ne moom la doon nit ñi di root fees del la ndox ba ndox yi di yuqeel ci kaw te te gisuñ kenn ku ko naan ndax booba seen ñooñ ñëpp alagu nañ ñu gis ay tabax yoo xam ne ñu ko fa tabaxoon tabax yëpp nga taxaw waaye kenn dëkkutu fa de afalam yasiiru kanaa doxu leen yéen suuf ba gis loolu kanaa doxu leen ci màkk ba gis loolu de nga eh, leen yéen waa màkk ci diggante bi ngeen dem Shaam yooyu di seen jeexit de fa kay fa takuna dana tam nekk lahum ñeen leen qulubun xol yaaqilu na def leen talu bihaa ci moom de aw aadaanun iki nopp yasmauna yoo xam ne da ngeen dégg bihaa ci moom ci xibaar yooyu nga xam ne ñoom la yàlla xalagoon ba pare rappal seen kër yi du ngeen xalam ci loolu du ngeen xalam ci loolu waaye nag ñoom lu ko waral dañoo am ay xel yoo xam ne eh, am ay xol yoo xam ne duñ ci xalaat am ay nopp yoo xam ne duñ ci dégg de fa innaha naka moom xissa yooyu ñi nettali loon ñoom dañ cee dañ cee am nañ ay nopp am nañ ay bët waaye nag gisuñ ko de laa taama deetu euh, euh, laa taama gumbatit al absaaru bët yi de bët yi nekku na ñooy gumba ndax su fekkoon bët yi ñooy gumba ñoom nga ngay gis seen bët yi waaye mënuñoo janoog loolu nga xam ne yàlla moom la def dëkk yooyu ba tax ñi ñi xalam ci loolu man cee xalaat man cee gëm walakin waaye li fi nekk ah walakin taama def na def ne gumba def na silmaxa alqulubu xol yi allati yi nga xam ne fii sudurin aji nekk la ci dënn yi de ñoom nag seen xol moo silmaxa moo moo gumba waaye du seen bëdi de da gis koo xam ne dana am bëtam di xool waaye fekk gisul mën naa gis dëgg du jàpp ne dëgg la moom dafay jàpp ne du dëgg rek lii yëpp ay ay la rek ay fen la de mm. wala ay caaxaan fekk xolom bi moom moo nuuru moom moo nuuru ba nga xam ne xol bi mënatut a gis dëgg mënta dégg dëgg mënta def lépp du mu gis rek du ko jàpp dëgg de kon nag ngay gis guub kon nag gumba buñ ko waxee du gumbaay bët de ndaxte Abdullahi ibnu Maktum ku nekk xam na ne silmaxa la woon woon waaye tey jii Abu Jaalin ma ngi doon gis moom itam ay bëtam ma ngi doon gis moom itam ay bëtam waaye tey waaye tey Abdullahi ibnu Maktum gëm na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gisul waaye Abu Jaalin gëmul weddi kon kumba gi lan la Abu Jahl kumba gi ci xolom la bi la la nekk de Abdullah ibnu Maktum moom kumbaam ci ay bëtam rek la yem de te xol bi rek moo am solo xol bi moom bu gëmee rek bu baaxee rek la baade wa yastaajiluunaka dana la yàkkamti loola bil azaabi ci mbugal ñu ngi lay yàkkamti loola nga lay indi mbugal mi mbugal mu ñitte koo daan na ñëw yonent bi walan yuxlifu hottit allahu yàlla wa'duhu dëxalam de yàlla nag ak dëxalam du ko hot mukk moo mooy du ñàkk am mukk dana am de dana wàccee mbugalam de wàccee na ko ca badar rey nañ ko juróom-ñaar fukk jàpp juróom-ñaar fukk de wa inna yawman naka bés inda rabbika fa borom ca bisi àllaaxira ka alfi sanatin niki junne at la de mimma ta'uduna telle aatale neen ko lim ko te li ngeen lim ko de bés nag ci ci yàlla bés ci bés yi ci àllaaxira junney at lay to lay tolloo ci bési àddina de junney at lay tolloo ci bési àddina de kon nag ñoom seen buggal ma dana métti de waka ay yin bëri a waka ay yin bëri na min xaryatin ci dëkk a am laytu dama ye a am laytu yeexee naa lahaa ñeel leen waye ñoom waalimatun way weddi lañ zuma aqastuha topp ma jàpp leen zuma aqastuha topp ma xalag leen de wal masiru delluwaay ba ilayya jëm na ci man yàlla de bari na ñooñ dëkk ñoo xam ne dañoo weddi yàlla mu yéexee ci ñoom mbugal bañ yaakaar ne mbugal mi di ñëw waaye topp rek ma xalak leen ñoom ñëpp rek ñi deere ba kenn gisatu leen <coughs> ñoom ñëpp ci man la ñu dellu de xul waxal yaa ayyuhan naasu ey yéen ñooñ makka innama innama ana man nazirun aji waare laa lakum ñeel leen mu binun ngay aji bit waare de ey yéen waa makka man kat duma mënuma leen a forcé ci dara mënuma leen a dóor mënuma xeex ak yéen mënuma man dañ maa sant rek pour ma waar leen loolu rek lañ ma sant ma jotal ma yàlla yónni loolu rek lañ ma sant de falladina ñi nga xam ne amuñu gëm nañu wa amilu te njëf asalihaati farati yaag naafile yi lawum ñeen leen maxfiratun mbaa ci bàkkaar wëris kon ak wërsëg karimun ngay aji tedd te mooy aljana de ñi nga xam ne nag gëm nañ yàlla euh, di jëf farata yeeg naafile yi loolu yàlla dana jéggal leen seen bàkkaar te it yàlla dana leen jox wërsëg te mooy aljana de walladina ñi nga xam ne waaye walladina ñi nga xam ne saaw dox nañ fii ayat naa ci jéem a yàq alquran suñu mu aajisina ñi di way nattaleeg ak ak lottu suñu wulaay ka ñooñu la gaa yi asxaabul jaxiim ñooy waroon safara de ñi nga xam ne nag ñoom ñi ngi dox di jéem a di ñi lottal suñ kàttan di wax ne ñooñ mënuñ leen a jot ngir la ñuy def noonu ñooñ ñëpp safara laa leen jëmee de wa maa arsalna min qablika min rasulin kooku lu ko wasal wàcc na ci wàcc na ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne aay bi nag li ko wasal bàyyi nee na mi ne jalaal ndëkkoom daf ko rëcc fii ci aay bi mi ne yonent bi sallallahu di jalaal nett bi dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng saaru najmi ci waa Makka ba àgg ci afara'aytumu llaata wal uzza wa manaata thaalisata al-uxraa duñ ko jàngee ñu ne ñu ne seytaane iblis sànni ci làmminam mu jàng ci lu ci bokkul ne yàlla yu yàllay Quraysh yu tedd yooyu ñi ngi yaakaar ci ñoom ak ràmm ñi ngi yaakaar ci ñoom ne loolu moo bégloo waa màkk ya muy yéeféer ya ba yonent bi ba muy sujjóot ñi ànd sujjóot sujjóot ak moom kenn rek moo su jootut mooy umayat ibnu xalaf moom mi nag duguram moom du ko féetee kaw mukk daal di tibb suuf daal ko laal ci jéewam ne sama dugub du ma féetee kaw mukk bàyyi nag mi ne baat yi jalaal fii lii jalaal lii fii yépp baat yi dara dara wérut ci xadiisu ak xaraaniq rek la yaa xam ne ci yahudi lañ ko jëlee ñi bañ lislaam ñoo ko sos di ko sos di ko sos ba mu agsi di ko wax rek waaye dara wérul ci dara du ci dëgg te jugewul ci fenn lu dul ibnul kul bi moo ko sos te moom borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne fenkat la kon hadis bi wérul kon li ñu wax ne li yonent bi wax noonu ne loolu la seytaane def loolu loolu mënul ne loolu mënul ne ndax su fekkee ne su fekkee ne iblis man naa wax loo yonent bi sallallahu alayhi loo xam ne yàlla waxu ko kon su boobaa su fekkee loolu jàppandee kon aay yee ko jiitu woon duñ ko gëmati ndax dañuy xam ne seytaane kon moo ko moo ko wax loo yonent bi ci làmmiñam rek mu wax ko te loolu bu fekkee ne am na kon daneen weddi alxuraan deneen sikk ci alxuraan kon te buñ sikkee alxuraan daneen sikk yonent bi sallallahu alayhi wasallam daneen sikk yonent bi daneen sikk shariato te buñ ko sikkee rek booba diine ji moom dafay yàqu tamaaman dafay yàqu bàyyi mi ne aadana allahu min sihati hada al hadis yal nañu yàlla musal ci wér ak hadis bi dara wéru ci mi ne kon hadis bi wérul ndax iblis man ta wax loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu wax loo xam ne yàlla waxu ko ci alquran te yàlla waxoon na ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizun ñun yàlla ñoo wàccee alquran waaye ñoo koy wattu wax na ko ci beneen laaya walaw taqawwala alayna ba'da al-aqaawili la axasnaa minhu bil yamini thumma la qata'naa minhu al-watiin boo boo waxuloon yàlla benn baat boo xam ne waxu ko rek boobaa boobaa dañ lay rey kon kon yonent bi ne waxal na xam ne waxu ko kon kon mbugal mi wàcc ci kawam ko ni ku ko yàlla waxee ñin jullit ñi rek nga xam ne ñin jullit yi nga xam ne julliti kese rek iblis mënta wax ci suñ nopp bi bañ wax loo bañ wax lu yàlla waxut waxuma laa nag ku matee ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi kooku loolu xijji ah loolu iblis mënu ko de moo tax bàyyi mi ne xadis bi dara wiru ci ibnul kulbi moo ko sos woqoota kooku borom xam-xam yëpp dajee nañ ne fenkat la de kon moo tax bàyyi ne li jalaal wax fii yëpp duñ ci gestu dara baa yi wax fii duñ ci gestu dara mi ne li mooy lii mi ne li wér mooy lii ma leen wax mooy yonent bi sallallahu wa sallam jàng na saaru najmi ca waa Makka ca kaa ca la Kaaba ga ba ko jàngee waa Xuraysh si dégg ko ba mu jàngee ba mu jeex ba àgg ci fasjudu lillahi bi sallallahu wa sallam si jot ba waa Makka yëpp yéeféer yi toogoon foofu yëpp daal di si jot <coughs> benn waaye rek moo bañ a sujjóot mooy umayya mi ne moom du waroon ko féetee kaw mukk lii rek la waaye yonent bi waxul ne yàlla Quraysh yooyu ak manaata yooyu yëpp ay yàlla yu tedd yoo xam ne ñu ngi yaakaar seen ramu yonent bi waxul loolu de loolu amul dara wéru ci moom lay buur di wax nag ne wa maa arsalnaa ñun de mosuñoo yónni min qablika ci njëkk sa min rasulin aw yonentu wala nabiyin di caageen aw yonentu illa ida tamanna illa ida tamanna ndere bu jàng na alxaasanni asheytaanu sheytaani fi umniyati ci noppam fi um a fi umniyati ci jàngam de fa yansaxullahu tam yàq yàlla maa yulqi la def na sànni ko asheytaanu sheytaani zuma yox ki mu topp xatte allahu yàlla ayaat yi ay kawte fam wala zuma yox ki mu topp saxal allahu yàlla ayaat yi ay kawte fam ci xol yi nga xam ne nam mu ne ñi gëm wallahu yàlla alimun aji xam lu mu sànneeg seytaane hakimun aji xereñ la mu de kon nag li wéer mooy lan yàlla masta yónni benn yónnantu benn yónnantu yàlla masu koo yónnan yónni moo xam ne bii wala mursal lu dul eer bu jàngee téere ba yàlla wàccee ci moom bu koy jàngal aw nitam seytaane dana sànni ay jax-jaxal ci xolom ñi koy déglu ca noppam ñi koy déglu ak xolom ñi koy déglu su fekkee nag ñooñu yàlla namm na ci ñoom ne ñu texe leen yàlla dana saxal seen xol ci gëm bañ gëm ne lii ñuy wax ci ci yàlla la bàyyee ko su fekkee nag yàlla namm ci ñi ñi texaadi seytaane dana jax-jaxal seen xol bañ weddi ko de bañ weddi ko de eh, eh, bu ab yonent yónnee bu jàngee rek rek seytaane ma ci wetam di sànni jax-jaxal ci xoli nit ñi day am saa léeg-léeg nga gis ku baax kuy taxaw di waare di wax nit ñi lu baax waaye kenn nga taxaw ne ah kii lu leen wax dara du ci dëgg euh, euh, su fekkee ne yow amoo dëgg waaye bëggam bëggam dëgg dëgg dëgg dëgg kooku mën na laa yàqal de mu ne lii yejaala ngir na def maa yulqi la def na sànni ko a cheytaanu fi fitnatan muy nattu lilladina ñeen ñi nga xam ne fii qulubim aji nekk la ci xol seen maradun sikki de maradun ak dolle ko pastef de wal xaasiyati ak way woo ak way woo ñu qulubuhum ay xol ak ñi nga xam ne seen xol yi dafa wow de ba duñ ko gëm de wa inna zaalimina naka way naka way weddi ña la fi shiqaaqin aji nekk leen ci ci bu wuutee baidin ngay aji guddite baidin ngay aji sori de wali yaalama ngir na mu xam wali yaalama ak ngir na mu xam alladina ñi nga xam ne utul ilma joxeef na leen tawxid ak alquran annahu naka moom alquran alxaqu mooy dëgg min rabbika tukkee koo ci borom sa de fa yuminu tañ gëm bihi ci moom fa tuxbita daal di dal lawum ay xol seen rek loolu nag yàlla dem ñi nga xam ne nag yàlla jox ne leen tawxiid ñi gëm laa ilaha illallah muhammad rasulullah gëm ne alquran ci yàlla la jugee ñooñu daneen gëm alquran ñooñu nag alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng ci ñoom dana dalal seen xol yi wa inna allah nag yàlla la haadi alladina mooy aji la haadi alladina mooy aji jubal ñi nga xam ne amunu gëm nañ ila siratin jëm ci yoon mustaqim ngay te mooy wala yazaalu na duñ dañ ah wala ah wala yazaalu dañtuñu wala yazaalu dañtu alladina ñi nga xam ne kafaru wét nañ fii miryatin ci sikk minu ci alquran ñi nga xam ne nag ñoom dañoo weddi duñ dañ mukk di weddi alquran de hatta taatiyahum ba dikkal leen asaatu bés penc baxtatan ci mbek ci ci mbetteel de aw yaatiyahum iku dikkal leen alaa bu yawmin mbugalam bés aqimin ngay aji jërmel de wala mu indi leen bés bu metti ci ñoom te indi na ko ca badar de al mulku nguur bu ñu demee pencam yàlla yàlla ne nag al mulku nguur yow ma izin beset keroog lillaahi ñeel na yàlla de yaxkumu dana mu ati bay moom diggante seen diggante jullit ñeeg yéeféeri de yàlla nag pencam yàlla bu demee ba jaam yëpp taxaw mu ne li ni mulki yow ana tey kan mooy bo tey kan mooy buur tey mooy buur kenn du doo dégg benn baat de boo déggee baat rek te tànk bu taxaw ba ba sonn foq la waaye benn baat doo ko dégg kenn du tontu ne lillaay waaye dul xaxaar tey nguur ñeel na yàlla rek bés dañ buñ demee nag ci pencam yàlla noonu nag yàlla dana àtte dana leen àtte diggante jullit ñi ak woy weddi ñi def fa ladina ñi nga xam ne amunu gëm nañ waa amilu te njëw as-saalihaati farati yaag naafile yi fii jannaati naimin aji nekk nañ ci aljanaay xéewal de muy ngëneel loo xam ne ci yàlla la bàyyee ko walladina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ wa kazzabu kafaru weddi nañu wa kazzabu tañ weddi bi ayatina ci alquran suñu fa ulaika ñooñu le gaay lahum ñeel ne leen azabun mbugal muhinun de borom ak doyadal de bay walladina ñi nga xam ne nag dañoo weddi yonent bi weddi alquran ñooñu yàlla dana leen mbugal de mbugal mu tat sa walladina ña nga xam ne haajaru gàddaay nañ fi sabilillahi ci taxawal diine yàlla summa qutilu topp ñi rayef leen ca xare ya ñi shahid aw maatu iki ñi dee ci seeni lal la yarzuqanahum dana def na wërsëgal leen allahu yàlla risqan wërsëg xasanan ngay aji rafet te mooy aljana de ñi nga xam ne nag génn nañ gàddaay euh, génne mooy ñi nga xam ne génne woon nañ génn nañ jugee màkk jëm madina wala képp ku gàddaay rek pour taxawal diine yàlla taxawal diine yàlla euh, pour l'islam taxaw nga xare xare am nga dem ci xare bi ñu rey la fa euh, boo nga am de nga am tiraangay shahid wala nga dee ci sa lal yàlla dana la wërsëgal aljana de mooy yàlla dana leen xarafee aljana de wa inna allaha naka yàlla la huwa moom xayru raziqina moo gën ci way wërsëgal ñi ñeel ko ku topp de la yutqilannahum la yutqilannahum a a dafa na xarafee leen a mat xalan xarafuwaay a yar daw na bu boobu daneen ko gërëm de mooy dana leen dugal ci dugaluwaay buñ gërëm te mooy aljana de wa inna allaha naka yàlla la alimun aji xam lu mu seen yéene wa xalimun aji lewel la walis mbugalam de zalika yooyu de xisa ñi nettali nañ la ko nettalee noonu la de noonu la ko nettalee rek noonu la wa man aqaba kuñ kuñ bi misli ma ah, bi misli ma oqiba kemek lañ ko mbugal bi ci moom zuma buxiya topp ñu la yan na daf na dimbale ko allah wa yàlla de inna allah naka laafun yi jéggal la mu way gëm ña xafurun aji aji baal la mu leen de yàlla nag wax na ne jullit ñi képp koo xam ne tooñ ne la di kuñ ci tooñ wala yéeféeri képp kuñ ci tooñ ci yéen nga fayu comme lañ la tooñee nga fayu comme lañ la tooñ yàlla dana leen yàlla dana leen baal te yàlla dana yàlla dana leen dimbale na ngeen fayu ba pare waaye yàlla yi dana leen dimbale ci kaw kooku nga xam ne moom moo leen tooñ de zalika googu leen ndimbal bi anna allaha nak yàlla yulu ji dana mu xarafe al leyla guddi fi nahaara ci bëccëg wa yulu ji def na xaraf an nahaara bëccëg fi leyli ci guddi de jàngatoon nañ jàng nañ ko jàng nañ ko ay yoon su maanaam mooy yàlla léegi léeg nga gis mu wàññi guddi gi euh, mu jël guddi gi dugal ko ci bëccëg gi léegi léeg mu jël bëccëg gi dugal ko ci guddi gi te doo ko yëg wàññi ci bii ñeenti waxtu dugal ko léeg-léeg mu wàññi bëccëg ñeenti waxtu dugal ko ci guddi gi yow doo ko yëg sax léeg-léeg mu wàññi ci guddi gi ñeenti waxtu dugal ko ci bëccëg gi léegi léeg mu wàññi ci ay eh, eh, eh, ci bëccëg bi ñeenti waxtu dugal ko ci guddi gi te loolu doo ko yëg moo tax ngay gis waxtu yi di changé rek léeg-léeg nga gis ñi noddu timis 18 heures nangam waaye léeg-léeg nga gis ñi noddu timis 19 heures nangam de fekk yàlla dugal na jël na fi mu ne ci jamono ji ñu toll ni wàññi na tey guddi gi dugal na ko ci bëccëg gi te yow yëgoo ko ba mu koy def de yàlla mooy def loolu de wa anna allah nak yàlla wa anna allah nak yàlla samiun aji dégg ñaani way gëm basirun aji gis la mu de zaalika googu de ndimbal ba bi anna allah nak yàlla huwa moom alxaq mooy dëgg alxaq mooy aji sax wa anna maa tad'uuna naka la da ngeen ko min duuni lu dul moom huwa moom albaatilu nee la de te mooy këram yooyu ngeen di ay ay ay ay nen rek caaxaan rek la de wa anna allah nag yàlla woo moom al aliyu mooy aji kawe lépp la al kabiru mooy aji màgg de alam tara kana xamul anna allah nag yàlla anzala wàcce ne min asamaa tukkee koo ci asamaan maa an ak taw fa tusbi fa tusbiha tam xëy al ardu suuf muxdaratan mi aji nata inna allah nag yàlla latifun aji ñëweeti la ay jaamam xabirun aji xam la mu la nekk seen xol bu yéexee taw de yàlla nag lépp la xam yàlla xanaa eh, xamu leen gis nga eh, eh, mi ngi wane ci kaw xanaa gisu leen léeg-léeg ngeen gis suuf si wow lool wow lool yàlla wàccee ndox nga gis nga xëy rek gis suuf si vert tax verte fleur fleur yi verte ñax mi verte lépp mu yàlla def ko de loolu nag def na ko génnee gi muy génnee meññat moomu ci ndox def na ko ngir ñëwee ci leen ngir yërëm leen ndax xam ne ne bu leen wàcceewu ndox da ngeen mën a dund gàncax gi sax ngeen du euh, euh, gàncax gi sax su boobaa kon du ngeen mën a dund te bu ngeen dundul seen dund du neex du ngeen am lu ngeen mën a lekk bu ngeen amul lu ngeen mën a lekk seen dund bi du neex de yàlla nag xam na loolu de xam na loolu te ku xam na te xam ne ne bu nawet jotee yàlla ji yéex a taw xam ne ñi nga xam ne ñoom taw ngeen gis rek ni ñu koy méttiloo si naan yàlla dina taw yàlla dina taw yàlla dina taw yàlla xam na loolu yëpp loolu yëpp def nañ ko pour ñëwee ci leen de law ñeel na ko maa fi samawaat la nekk ci asamaani juróom-ñaar wa maa fi lardi ak li nekk ci suufi juróom-ñaar ya wa inna allah naka yàlla la huwa moom alxaniyu mooy aji doylu walis jaamam alxamidu mooy aji sant ay wali yoom de alam tara kanaa gisul alam tara kanaa xamul anna allah naka yàlla saxara tàggan na lakum ñeel leen maa fi lardi la nekk ci suuf ci ay bàyyi ma ci ay ci ay bàyyi ma wal fulka gaal tajri dan mu daw fil baxri ci géej bi amri ci ndigalam kanaa yàlla tamit tàggatal yi may yi ngeen di wax lu mel ni mbaam ak fas ak gëlëm yooyu yëpp tàggatal neen ngeen man koo war man cee war dem tukki loolu yëpp yàlla moo leen ko tàggatal ko yàlla tàggatuloon kon du ngeen ko man de ndax am na eh, yoo xam ne yàlla tàggatul ko doomu aadama waaye munuñ koo war de boo bëggoon a jàpp ab kéwél wala badoon fële pour bëgg koo war dana jafe de kon yàlla moo leen tàggatal lii ba ba ngeen man ko war noonu tamit la leen tàggatalee Mm, eh, gaal yi ba ngeen man cee ba ngeen man cee ba ngeen man cee war defar ko ba mu baax di daw ak moom ci kaw géej gi ci ndigal yàlla yàlla moo ko def ndax loolu ndigalal yàlla rek la ndax ab pusa rek boo ko jëloon yëkkati ko sànni ko ci géej gi du ci mën a taxaw kon nag lu em ni gaal ak boto yi ngeen ciy teg lim diisee ñi enu ay ay toni toni toni taxaw ndox mi tee leen loolu yàlla moo leen ko loolu ci loolu ci loolu yàlla moo ko def ci ndigalal yàlla rek ci lay dawee de wayum siku tem jàpp tem nga asama asamaan mu jàppal leen asamaan nag an taqaa bu mu tàbbi alal ardi ci suuf illaa bi izni ndene ci ndigalam de yàlla nag téel leen asamaan si ba nga xam ne asamaan si du wadd mukk ci kaw nit ñi yàlla moo ko téye xam nga euh, euh, mbaar moo xam ne amul bant amul poto amul weñ amul dara ñu gis ko mu taxaw ni ko yàlla sañcee àddina ba tey yàlla moo ko téye de bu ko téyewutee rek ron na ci suuf de du du du du du rot nag lu dul ci ndigalal lu dul ci ndigalal yàlla waaye pencam yàlla bés bu ñëwee nag ba nga xam ne yàlla soxlaatul asamaan keroog dana ko bàyyi de keroog nag boobaa ba nga xamee ne yàlla mi ngi bëgg tukkal àddina malaaka laaj yàlla ne ko fan la jaar mu ne leen fan la ci kaw asamaan ñuy laaj yàlla ne leen fan la ñuy jaar pour dem yàlla ne leen fu fu fu waay nekk rek fu malaaka nekk ci asamaan rek na nga bënn jàll dem ndax fi mu ne eh, eh, eh, sama asamaan si min jaami doomu aadama yi rek laa ko teeloon waaye te ñoom ñëpp rey naa leen acca acca wàcc leen nga gis malaaka yi di bënd rek di bënd di wàcc rek booba nag booba asamaan moom booba yàlla amatu ci soxla ndax ñoom ko doon dafal booba ñëpp faagaagaleen ne ne inna allah naka yàlla la raawufun inna allah nag yàlla raufun aji ñëweete la rahimun aji yërëm la def bin ah aji yërëm la bin naasi ci nit de woo moom buur allazi mooy buur ba nga xam ne axyaakum dundal na mu leen suma yumitukum topp mu rey leen bu seen dig jeexee de suma yuxiikum topp mu dundal leen mooy bu mu leen de bu bu euh, mooy waxtu ngeen di dekki inel insaana naka naka naka yéefeer la kafurun weddi la xéewal yàlla de li kulli ummatin aji nekk li ci bépp xeet naa def nañ man sakan shariatu bu muy jaamu yàlla de bépp xeet rek def nañ ko ak jaamuwaay yàlla ay yahudi wàcce woon nañ ci ñoom tawreet nasaraani joxoon nañ leen linjiir ñooñ daawuda joxoon nañ leen zaboor xeet bu nekk rek yàlla jox na leen shariatu bi nga xam ne moom la ñuy jaamoo yàlla de moom ñoom naasikuhu daneen jëfee ci moom de dañ koy ñi koy jëfee nag falaa ko kon bu buñ xëccoog yow fil amri ci mbir mi de ñoom nag ñoom yéeféer ñoom yéeféer yi dañ daan dañ daan wax julli ñu ne leen yéen daal bu yàlla rendee ngeen ne yàlla lim rendi euh, euh, li yàlla rendi du ngeen ko lekk te yéen li ngeen rendil seen bopp ngeen di ko lekk maanaam métti xam nga métti ñu ne yàlla moo ko rayal bopp loolu yàlla rayal foofu ngeen ne ngeen ne ngeen ne daganul yéen li ngeen rendil seen bopp nag ngeen ne dagan fu ngeen ko teg waaye fekk yàlla moo jox ndigal julli ñi ne buñ lekk dara loolu dañ koo rendi ci turi yàlla de dañ koo rendi ci turi yàlla lépp lu ñu rendiwul ci turi yàlla buñ ko lekk de kon nag yéen loolu yéen amoo a joxal ne lii mooy shariatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de wadoo jëm ci diine sa ooteel rek jëm ci diine de Eh, innaka naka yow la ala huddan aji nekk nga ci njub mustaqimin ngay aji jubde bàyyi mi ne kooku moom am na yaakaar bu dëgër ku yàlla wax na ko yow li nga nekk mooy njub mi ne kooku am na moom yaakaar bu dëgër a dëgër sa mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de wa in jaadaluuka wa in jaadaluuka ndem ndem dàgg nag yow ci mbiram diine waxul waxal allah yàlla alam dana xam li ma taamalo te léegi di jëf de te ku nekk dana la fay jëfam allahu yàlla yàqu dana maate baynakum diggante seen yéen jullit ñi ak yéeféer yow ma ca péncam yàlla fii maa kuntum ca la ngeen nekkoon taxtalifuuna di wutee fii ci mbiram diine de alam taalam ganaa xamut anna allaha naka yàlla yàlla mu dana mu xam maa fi samaawaati la nekk ci asamaani juróom-ñaar wala ardi ak suufu juróom-ñaar inna zaalika nekk loolu ñu tudd fii kitaabin aji nekk la ci téere te mooy lawhul mahfuuz inna zaalika nekk loolu e, e, e, inna zaalika nekk loolu yasirun aji jàpp na alallahi ci yàlla de wayaabuduuna dañuy jaamu ñoom yéeféeri min duni daay lu dul yàlla de maalam yu nazil loolu wàcce loo maalam yu ah ah, ah mi yu loo xam ne wàccewut bi ci moom sultaanan ak ak lay de yéen ngi jaamu loo xam ne amu leen ci wenn lay de wa maa laysa lahum déet di ñeel leen ci loola bii ci moom ilmun ak xam-xam de te loolu amu leen ci benn xam-xam li ngeen di jaamu keneen li ngeen di jaamu yooyu amu leen ci benn xam-xam de wama wama lil zaalimiina déet di ñeel way weddi min nasirin ci ndimbal de kenn du leen dimbal wa iza tutla ndem jàngeef nañu alayhim ci ñoom naa alquran suñu bayyinaatin yee aji e, bit e, ataarifu da xam fi wujuhi alladina ci xarxarama ñi nga xam ne kafaru wét nañ al munkara sikk ga e, sibeel ga de al munkara sibeel ga yakkaaduna dañu ñu jege yastuna di songu Ah, billadina ci ña ci ñi nga xam ne yatluna ñu ngay jàng alayhim ci ñoom de ayatina alquran suñu de yàlla nag ne heure ah, eh, buñ jàngee alquran ay bit yi danga gis yéeféer yi nga xam ne ñoom ñoom wét dañoo wétti yàlla gëmuñ yàlla gëmuñ alquran da nga gis ni ñuy sibee jàng boobu ñuy jàng ci ñoom alquran dañuy bañ ñi koy jàng lool dañ leen ba xaw tuut sax ñi ñi song leen pour xeex ak ñoom ngir bañ rek ñu bàyyi jàng ngir sibéer ko buur ne xul waxal xul waxal yow yonent bi afagu nabiyukum ndax duma solo leen bi sharrin ci lu gën a bon min zalika ci loolu sibéer googu ngeen di sib alquran ñi koy jàng xaar leen mu wax leen loo xam ne moo gën a sibu foofu loolu mooy leen annaaru mooy safara de waa daa daal na ko allah yàlla alladi ñi nga xam ne kafaru wét nañ de fo bi sabonna almasiru delluwaay bi dem laa de yéen safara ngeen jëm te loolu moo gën a loolu kay ngeen war a gën a sib saa ci jàng gi ñu jàng alquran ndax safara ngeen jëm ndax da ngeen weddi yàlla yaa ayyuhan naas e yéen ñooñ màkka e yéen ñooñ màkka duriba defeef na masalul leem fastamioo déglu leen lahu ñeel allahu ñeel lépp boo de yàlla nag nee na waa màkka yàlla defal na leen lépp de lépp boo nag na ngeen ko déglu de inna alladina naka ñi nga xam ne te doona dañuy jaamu min dunillaahi lu dul yàlla te mooy këram yi lan yaxluqu bindatuñu zubaaban weñ de wala wi tamoo doonte daje nañ lahu ñee leen yàlla nag indi na lépp indi indi na lépp de te nee na lépp yi yéen ñëpp na ngeen ko déglu na ngeen ñëw ngeen déglu si lépp yi de mooy yéen mushrikuna yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jaamu leneen lu dul yàlla di jaamu ay estati di jaamu ay tabax di jaamu lu nekk kaay ma wa leen kaay ma léebal leen de ñooñu ngeen di jaamutal mooy xew mi ñooñu weñ sax mënuñ koo bind de weñ mënuñ koo bind yàlla joo xam ne nag mënta bind weñ kooku noo koy jaamoo de ñoom ñëpp buñ dajee woon ñoom xew ñëpp buñ dajee woon ak lépp luñ am ñi dajee pour bëgg ba bind wenn weñ duñ mën a bind weñ de kon lu mënta bind weñ nag mu loolu naka nga koy jaamoo de wa in yaslubuhum ndem rekki na leen azubaabu weñ shay'an dara laa yastanqizuhu defut defut dàq ko minu ci boppam de ñoom ñoom xerem yooyu ngeen di jàmm bu ngeen leen jëlee ngeen jël seen parfum yi neex yooyu diwal leen ko seen kaw diwal leen ko weñ benn weñ rek ñëw dal leen ñoom xerem yi duñ mën a dàq benn weñ woowu ku mënta dàq benn weñ nag kooku noo koy jaamoo ku man amul kàttan ba mënta dàq weñ bu tàq ci kawam kooku mu ngeen koy jaamoo de a daxu fa ak doxa dina ab taalibu aji jaamu ji wal matlubu ak ku ñu jaamu de kii kii jaamu doxadi la kii ki muy jaamu ku doxadi la de mooy këram mi ak jaamukati këram mi ñoom ñaar ñëpp ñu doye di lañ de këram mi ndax mënta mënta bindi weñ bu ko dalee tamit mënu koo dindi boppam yéen itam xam ngeen ne lii mënu leen a jëriñ dara de kon yéen ñëpp yéen a yéen a doxadi de maa qadaru màggaluñu allah yàlla xaqa qadri dëgg-dëgg màggalam de maa qadaru xamuñu allah yàlla ak qadri dëgg-dëgg xamam de xamu leen yàlla dëgg-dëgg xamam de waaye bu ngeen ko xamoon dëgg-dëgg xam kon da ngeen ko jaamu de te bàyyi xelam de inna allah naka yàlla la qawiyun aji dëgër lu mu a azizun aji not ay mbiram de allahu yàlla yastafi dana mu tànn min al malaayikati ci malaaka yi ak yonantu wa min al ak ci ñi de yàlla nag dana tànn ci dana tànn ci ay ci malaaka ay yonantu tànn na ci Mikaayil Jibril ak Mikaayil def leen ñu yonantu nit ñi dana ci tànn ci ci ci ci nit ñi mooy Muhammad ak mu yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yonantu yàlla Ibrahima de inna allah nag yàlla samiun aji dégg def na wax ko basiroon aji moo aji gis la dem na jëf ko de mu dana mu xam maa bay ne ay nekk ci kanam seen wa maa xalfum ak la ca gannaaw seen watur ñëw def na delloo lu muuru mbiri ilallaahi jëm ci yàlla de mbir yëpp dana dellu jëm ci yàlla de yaa ayyuha alladina amanu ee yéen gaa ñi gëm alquran irka'u rukoo leen wasjudu sujood leen wala yaa ayyuha alladina amanu ee yéen gaa ñi gëm alquran irka'u wasjudu julli leen rek ndax julli julli ndax yahudi ñoom dañ daan sujootal yàlla waaye nag seen julli amul rukoo kon julli rek la ci jubli rek julli ñi nag ñoo ñoo ñoom am sujjóot ñoom ñoo am rukoo de waabudu wéete leen ak jaamu rabbukum borom seen wafalu jëf leen alxayra yi wede laallakum ndaxte yéen tuflihuna ngeen texe de yàlla nag wax na ñi gëm yàlla ne leen na ngeen julli seen waxtu yi juróom de ne ngeen julli ndax yàlla moo ko deneen ne ko def de te na ngeen wéetal yàlla te bañ koo sàkkal bokkaale te na ngeen jëf jëf yu baax de jëf yu baax yi na ko def mooy jokku mbokku bokk na ci jëf yu baax mooy jokk mbokk ak makaarimul axlaaq yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ko mooy may ku la xañ jokk ku la dogu ak jéggal ku la tooñ loolu yëpp ci jëf yu baax yi la bokk ci jëf yu baax mooy julli waxtu yu juróom loolu nga xam ne yàlla moo ko farataal ci jaam ci jaam ci diggante bëccëg ak guddi mooy julli yi de bokk na eh, ci bunt yi wi nag bàyyi nee fii lu bari bokku bokk na ci naafila nawaafil yi di def di naafila guddi yooyu yëpp ci jëf yi bàyyi ci la bokk de ak julli guddi ak naafila koor mooy koor goo xam ne duur weeru koor waaye yaa ko def rek ngir coobare pour def ko jaamu yàlla ak dundile su fekkee yàlla may na la alal ngay dundile sa alal loolu yëpp ci jëf yu baax yi ci la bokk de jàng alquran ci jëf yu baax yi ci la bokk de zikkar di tudd yàlla loolu ci jëf yu baax yi la bokk de julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu wa sallam loolu ci jëf yu baax yi ci la bokk de xaj ci jëf yu baax yi la bokk de anami jëf yu baax yi lu bëri la nit ki nga xam ne noonu la euh, euh, nit ki ay jikko euh, doomu aadama ngi seen jikko yu wuutee noonu la jëf yu baax yi wuutee de moo tax bëri na jaam boo xam ne yàlla ubbil na ko ci julli te du ko ubbil ci koor am na jaam boo xam ne lépp lu am rek yàlla mi ngi ko mayee ci julli am na jaam boo xam ne yàlla mi ko ubbil ci koor waaye ci woor la ko ubbil waaye ubbilu ko ci aj am na jaam boo xam ne yàlla ubbil na ko ci aj waaye du ubbil ci jàng alxuraan am na jaam boo xam ne yàlla dana ko ubbil ci jàng alxuraan waaye du ko ubbil ba mën a dundi leen kon bépp doomu aadama rek bépp nit rek dana am bunt boo xam ne ci bunt yi wi moom la wala jàkkaarloo mu taxoo ko lépp loo xam ne gis nga ne moom la yàlla yombalal rek taqool loolu de ndax alxayru kulluhu asawaun de yiw yëpp ñoo emoo yiw yëpp rek boo ci jàpp rek euh, euh, euh, baax na de kon yàlla mi ñuy digal ne na ngeen jëf lu baax su fekkee ne bëgg ngeen a texe de yonent bi sallallahu wa sallam wax na ne ci jëf yu baax yi ba tey képp koo xam ne un na mbubu mu rafet mu mu jox koo xam ne ku ku ku rafle koo xam ne amul lum sol nga yëkkati yére jox ko ko yàlla dana la solal yére ci aljana de yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne képp koo xam ne ku mar la mar ba amul lum naan nga yëkkati nàndal ko mu naan yàlla dana la nàndal ci aljana de képp koo xam ne euh, gis na ku xiif mu lexal ko ab tib mu lekk yàlla dana ko jéggal ay bàkkaaram te dana ci safara te dana ko goreel ci safara de kon bunti yu yaangoo buntu yi bëri na lool ku nekk rek war nga cee taxoo benn di ko def de wa jaahidu jihaad leen fillaahi ci yàlla xaq jihaad yi dëgg-dëgg jihaad de mooy bàyyi bi ne dayob jihaad ngoo mooy day jihaad leen ci yàlla dayob jihaad de wa moom yàlla ittabaagu mu tànn na leen diine de wa maa jaala aleykum ci yéen fi diini ci diine min xarajin ci awtiis de yàlla nag moo leen tànnal diine te mooy diine lislaam te sonalul ci kenn de yàlla diine ji diine lislaam diine la joo xam ne diine ju yomb la yàlla jafeelu ko teg ko nit ñi comme yeneen diine yi dem meloon yéen xeetu yonent bi nag yàlla moo leen moo leen yombalal ba nga xam ne boo tukkee tukki lu juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñaar nga dem julli yi nga xam ne moom nga waroon a def ñeent yàlla may na la ko nga def ko ñaar de boo boo ñàkkee ndox bu julli jotee nga ñàkk ndox amoo ndox moo jàppee yàlla may na la nga tiim pour mën a julli de boo boo demee ci ab xàll nga dem gisoo dara loo lekk lu gis nga fa rek métti lu dagan ba sonn amoo ko nga gis métti yàlla daganal na la nga lekk ko de ku feebar eh, bu wóor bu weeru koor jotee ku feebar ba mu wóor na ko ne mënta woor yàlla may na ko mu dog ci koor yow bu tukkee may na ko mu mu dog de waaye nag daf koy fay loolu yëpp yàlla def na ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bashiru wala tunaffiru waaw ah, yassiru wala tuassiru na ngeen bégal nit ñi ah, te bu leen bu ngeen leen dawloo diina de waaw ah, na yombal nit ñi te bu na ngeen nit ñi waaye bu leen bu leen jëfeel nit ñi de loolu eh, yàlla tànnal na leen kon diina de te deful ci benn awtis diina lislaam yàlla def na ci yomb-yomb yooyu de millete abikum taqoole nag diina bàyyi seen ibrahima ibrahima huwa moom sammaakum tuddee na mu leen al muslimina jullit min qabli ci njëkk de taqoole nag seen dina baay Ibrahim nga xam ne moom moo leen jullit de yàlla tuddee na xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca téere yu njëkk ya ca téere yu njëkk yi njëkk alquran na xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi jullit ñi ñoom ay muslimuna lañ de ay jullit lañ wa fi hada ak ci alquran ji la tamit tuddee na leen fi jullit li yakuna ngir ngeen nekk eh, ah li yakuna ngir na nekk ar rasul yonent bi shahidan di seede aleykum ci yéen ca pencam yàlla de ngir yonent bi sallallahu alayhi wa seede leen ca pencam yàlla de wa takunu ak ngeen nekk yéen shuhada di way seede ala naasi ci nit de yéen itam ngeen nekk ñoo xam ne yéenay seede nit ñi ca pencam de eh, yàlla buñ demee pencam yàlla ba jaam yépp dajee ñépp dajee ci pàkk yàlla ku ñuy njëkk xisaab mooy xaliba gi ne ko yow xaliba gi ndax jotaloon nga ah, li li ah, ndax jotaloon nga mahfuz li ma la waxoon nga jotal ko de xaliba gi ne ko waaw jotal naa lawil mahfuz de lawil mahfuz yow xaliba gi ndax jotaloon na la mi ne jotal ah, na na wa kay yow yow mahfuz ndax jotaloon nga jibril mi ne waaw jotal naa woon jibril de ñu ne jibril yàlla ne yow jibril ndax lawil mahfuz moom jotal na la la ko yónni woon yaw yow de mi ne ko jotal na ma kay mi ne ko jotal nga la ma la yónni woon ci yónnatu yàlla noo ndax mooy njëlbéen ak yónnatu de ndax jotal nga ko mi ne waaw jotal naa ko ko de noo yow ndax jibril jotal na la mi ne jotal na ma ndax yow jotal nga sama xeet mi ne jotal naa leen waaye dañ maa weddi de dañ maa weddi yàlla ne xeeti noo ndax yéen yónnatu yàlla noo jotaloon na leen ñi ne ko maa jaa naa min bashirin wala nadirin bàyyi ñu ne tàmm nañ fen ñu ne ko ñun aji waari mosu ñee ñoo waar mosu ñee dikkal yonent yàlla noonu nag yàlla waxoon na ko yow kan mooy sa seede ndax am nga seede mi ne waaw waaw ko kuy sa seede mi ne xeeti yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeeti yonent bi sallallahu di seede de yàlla ne ko yàlla ne ko xeeti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax xeeti yonent bi ne leen naka ngeen ni noo te yéen Eh, ci eh, eh, ci xeet yi de mi ne ko yow ñu ne ko yow yàlla yaa yónni ci ñin ab yónnentu boo xam ne sadiqul masduq la masta du wax mukk lu lu dëgg nga wàccee ci moom alquran nga wàccee ci moom téere boo xam ne laa yaati baatilun min bayni yadayhi wala min xalfi boo xam ne dara nekkul ci ci ay nar ndax du ko dikkee ci kanam du ci gannaawam téere boobu nag moo wax ne inna arsalna nuuhan ila qawmi de téere boobu moo ñu wax ne yàlla yónni na yonent yàlla nuux ci nitam ñi ñu weddi ko de ah atti nuux nag daal di sax de moom moom mu texe xeetam texe di muy oo par xeet di oo par xeet xeet yëpp yonent bi sallallahu xeeti yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen di seede waaye ñun kan moo ñuy seede mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy seede xeetam de wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada ala nnaasi wa yakuna rasulu alaykum shahidan teew yonent bi mooy seede xeetam de faaqimu taxawal leen asalaata julli juróom wala faaqimu na ngeen na ngeen sax asalaata ci julli de na ngeen saxal julli de waatu joxe leen zakka azakata azaka waxtasimu mooy leen waxtasimu jàpp leen billaahi ci Yàlla de huwa moom mawlaakum mooy aji dimbale seen de mawlaakum mooy aji méngoo seen de fa neexma baana al mawla borom bi te yàlla la de wa neexma baana an nasiru aji dimbale gi te mooy yàlla de kenn mënta dimbale dëgg dëgg ku dul yàlla képp koo xam ne yàlla dimbale na kenn mënul laa gàccal de in yansurukum allahu fala gaaliba lakum sadaqa allahu lazim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahuma salli ala sayyidil awwalina wal axirin yàlla mu ko tàmbali ba agsi fi yàlla ko àggaleeg jàmm te bañ cee def dog yaara dëgg yàlla ñu ko xamal yaara bi barke alquran yàlla ka ko wasal ak ki ñu ko wasal ci moom ak li tax ñu wasal ko ci moom yaara bi barke diinal islam barke tariqa Cheikh Ahmed Tidiane barke maam alhaaji Abdoulaye barke Baye allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim